في قلبي دائما تمضي الأيام ودعائي كل عام après ma am ma joxe ma génnaat du ma yow Binta yow da ngaa ñàkk fayda yow non non du ma yàgg dem day ñëwaat dem day ñëwaat du dama am tuuti du ma baax na dama ñëw xaar koor gi moom tey dafa mel ni moom Malick da nga am wàll Malick Malick dégg naa moom imam nee na moom Malick moom yor

ngi jam ñoo ngi am jam ba bi ngeen toog ñaari saako la bi ma ko sama bopp bi ñëw defar ko fii sa midi ci feew après bii nag bu leen jëw de jëw wax wax yi salte amul wax wax yi bat jiw rek weer ko dañ jëw leen léegi eh ban doom maa ngi ci كم أهواك يا شهر الصيام أنا في قلبي دائما تمضي الأيام ودعائي كل عام ربي تقبلنا يا <laughs> Banten Riu dolan tien tuh, menutu tuh terus bak bae ning awak bak bak bae ning awak Teater ding semudur nam. boleh dar boy jenenge Yo bay mo ki de bade jogo mo sumu bono jo sumu kanani be gëna rek ngeen dugg jigen bay yaa ko bañ sama gàcce la ngay bañ. yow damaa jeex yow yow yow yow sama mbënd la ngay bañ sama gàcce. wala sama xam. ma roog la nga am tuul donc. liggéey bi. bu leen fàttali abonné ci seen YouTube bi bu leen fàttali abonné ci seen YouTube bi.